te kenn du laaj euh, lu waral sa teewaay tey waaye tey cër bi nga xamante ni Baye Ndiaye jël na ko jox ko kii di magam Aziz Ndiaye ban jàngat nga am ci loolu. mais man di balaa may ñëw sax xam naa ne Aziz la koy tuddee ndax Baye dafa bëgg Aziz ba gëmewu ko Aziz tamit bëgg ko ba gëmewu ko li may ñëw laa xam ni euh, Aziz la koy tuddee loolu moom maanaam kenn xalaatul woon ni sa dina ko tuddee keneen ku dul Aziz ndax Baye Aziz daa gën a fort ci moom lu ne. moo tax mais ñi ngi ñaan xale bi dund ba am ndey ak baay yàlla defal ko jàmm tawféex lafal ko cat ci barke Cheikhul Khadim. Bousse ñu gis ne dëppee nañ la bës donte ñëwagul làmb ci teel a am coow est-ce du borom bës bee toll noonu. waaw loolu moom yàlla moo ko def soo gisee sax médiatiser wu ma drapeau bi maanaam jëlee wu ko ni ma ko war a jëlee ba pare bis ba sax damay sañse rek ànd ak sama ñaari xarit dem du ma ko def noo xam ne day. waaw parce que coow li ci at bi dafa bari. ñëpp ñëw. waaw te am na yeneen ak yeneen yu nekk suñu kanam mais damay remercier suñu xarit suñu grand muy Fallou Ndiaye mu nekk nit ku baax. tuddee ñu ko rek te yàlla tax jàpp ñu tamit te yàlla rek tax man it ma jàpp ko bëggal ko sama bopp gëmeewu ma ko. ñooñu ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di ñaanal àdduna bi yëpp di ñaan làmb ji jàmm sax si waaw ñi nga xam ne ñu ngi ci làmb ji ñëpp am jàmm ba keroog bis ba incha allah rabbi. monsieur dafa mel dama seetaan sa benn vidéo démb ngay wax ci diggante guy gi ak rëg-rëg nga di man pare naa pour tekki 5 millions guy gi day daan rëg-rëg est-ce que la nga waxoon ba tey yaa ngi ci. non loolu ba démb ba suba maa ngi ci euh, ba suba maa ci parce que yow yow mi xam nga guy bu baax dafoo dina jàpp la man it xam naa ko tey ku muy mënti bëreel ci àdduna rek dañuy dañuy am yaqin ni moo ko mën ndax xam nañ ni combat bu mu jël o sérieux rek te kafu ci réewu ci waaw yàlla mën na ko ci suturaal may ko ndam. day waaj bés tamit muy grand théâtre. waaw mars ñu ciy sargal jigéen ñëpp mu nekk guddi jigéen ñi ah Pape Diouf war ko tëgg ñu jël ko nag dippee ko jigéen ñëpp ndax ñun jigéen ñi ñooy suñu lépp dañ ko dippee jigéen ñi la le 19 mars ñuy xamal nit ñi ni Pape Diouf dafa yëg dafa gëj grand théâtre te grand théâtre bu fa Pape Diouf gëjee dañ koo war a yëngal ba mu yëngu billets yi nag génn na en gros lañ koy jaay jaay ñu sax par détail en gros la ñuy jaay bii yi en gros la ñuy joxe bii yi ndax bii yi fu mu nekk nii man damaa dem ba sentir ni nit ñi dañoo sentir grand théâtre bi moo tax ma fuuy tuuti jël billets yi di ko def en guro waaw ku jëndul plus de 500 du ma la jaay wala plus de 250. ticket yi waaw ticket yi ay benn nii 10 000 10 000 piqué yi par cinquante laay jaay kuy jënd cinquante nga ñëw ma jaay la cinquante kuy jënd vingt nga ñëw ma jaay la vingt waaw mën naa ko kii kuy jënd deux cent cinquante nga ñëw ma jaay la waaw ay benn ñaar noo du ma ko jaay. <laughs> très ndax grand théâtre bi ni ko nit ñi jëlee moo tax. engouement beeg yooyu fi mu nekk nii billets li ci des bareetul en gros lay jaay. waaw ñuy bu baax a baax a baax. yow nag sama xarit nga sama rakk nga sama frère nga. ma leeral gars yi ne 95. kii moom a ko tuddee. loolu dama koy wax tey ba ma koy tuddee diggante combat guy gi la ak nees mu ñëw école bi bëri torop ay guy gi mu ne ma yow yaay numéro 95 jëlal guy 95 combat bu ma bëree bi mu demee États-Unis rek laa ko ñàkk mais combat bu mu bëree maa toog mu toog ni ma lii ngay def lii ngay def kon tey lu ma am ci làmbu ginnaaw yàlla jëmm ji génne ci lu bari guy 95 kii moom ko tuddee te jigéen woo ma frère. waaw te woo bàyyi woo ma chaque instant yaa ngi may woo yaa ngi may nemmeeku yaa ngi xool ci lu ma nekk yaa ngi naa ma defal lii defal lee kon ma lay santal bu baax di seedal loolu waa Sénégal. yow borom baax nga gaynde nga da ngaa gëm sa bopp. maa ngi fàttaliku bi ñuy ànd ci Sadio Mané. démb la moo tax su ma gisee kii gars yi kii nii. waaw Sadio Mané ñun bi ba ngay tudd Sadio Mané di jaay woo ma kenn xamu ko Ndiaye woo ma ni ma am na kuy tudd Sadio Mané këccëb wool ma ko mu ñëw ma ñëw Sadio recevoir ma dugal ma néegam may ma ay mayo jour dëju papa yi Ahmed Aïdara la waaw loolu dafa yàgg billaahi Sadio woo ñu ñu dem këram xam nga jour boobu laa yor numéro Sadio ba tey nii nii nii chaque jour ba tey ni te chaque jour xam nga nit ñi booy xam nga booy wax man chaque jour damay bàyyi ba wax jot ma wax numéro ma ngi bii gis nga numéro bii. gis nga ko mi ngi nii. mooy whatsapp am whatsapp am bii. gis nga whatsapp am bii whatsapp am bii damay déggante ak moom chaque 24 heures. barke borom Touba ba ni mu. gagné ba ci guddi gi. mais doo ko wane fenn doo ko fësal. mais fekkee démb. waaw moom moo la woo ni la ñëwal am na ku may tudd ci télé bi. yow mii yaa ma ko wax. yaa ma fekk école de lutte Mor Fadam ne ma. nijaay saajo Mané ne na nga dem kër ga. ma ànd ak yow dem fa mu yéegal ma ci kaw ma fekk fa waa Kaasa yi. du ma ko fàtte mukk fekk waa Kaasa ci kaw Sadio toogal ma foofu. loolu ay mat na léegi ay 10 ans. waay te ba tey ndamoo woo ko ba tey ndamoo ma kon Sadio félicitation mon ami félicitation. félicitation man benn joueur laa am moo may seetaan loo télé moo may seetaan loo football muy Kara Mbodj buy football laay seetaan mais yow nag tu es notre fierté on t'aime yàlla yàlla lafal cat. mais am na benn ah. question boo xam ne il faut ma laaj ko complicité bi am sa diggante yàgg sa soxna damay suivre sa sinap ba ci say page lu ci bari seen i vidéo yéen ñaar complicité boobu noonu lan la. mais loolu ci doorin gala nit kenn mënul forcer leen moo tax balaa ngaa takk jabar da nga koy miin mu miin la boo jékki rek wala jékki-jékki rek topp sa fugg wala sa bëgg-bëgg wala ngeen topp affaire bës ak coow sëy ba du yàgg waaye xale boo ko yaree ngeen yarante dem ba mag miinante xamante lépp boo leen sëyee day neex sama diggante kooku loolu la 2011 ba tey ñu ngi ànd merci jaajëf